من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حمدت من يحصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي يوني شيطان تسون التلفزيون الخديمية ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baal ak ñëpp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéeneem ci liggéeyal sëriñ Touba lépp mu matale ko nam ko soobee di siyaare mbooleem kilifa diini yëpp ak kilifa aada yi tey nag danoo fa yéene ànd ak yéen ci benn taxaw seetlu boo xamante ni xam ngeen ne weer wi ñu nekk di mois de mars ca mars deux mille Meh, ci la tawat ji nga xamne mom wax tawatu bala bi nga xamne mo fi wàcc ci la tambali won ci ñaari fan ya ba ci waxtu wi ñu wara taxaw nak def ci ben taxaw setlu ak tawat ji bimu fi ñewé lan la fi def ci Senegal ak nan lan ko taxawoo ak rawatina sunu kilifa gi di Serigne Mountakha ban taxaway la ci def tawat ji bi mu fi wàccee ñëpp yëgandoo ne tawat am na fi joo xamante ni dañ koo war a moytu war ko fegu mu doon loo xamante ni lu tiis la nag ci àdduna bépp ku ci nekk jaaxle euh, réew yëpp tëje ba ñu baree bari seeni liggéey ñu ñàkk ko ci seenam koom daanu seeni mbir yu baree bari wàññeeku seeni activité bi nga xamee ni ñëw na Sénégal gi nag te mun taxa bi ko xamee ni kilifa gi yëgal na ne xam na tawat ju fi ñëw la sëriñ bi daal di tàmbaleeg mboolem waa Sénégal ànd ak ñoom ci tawat ji lépp loo xamante ni docteur yi jàngale nañ ko ci wala wax ko ci borom xam-xam yi loolu daf ta ànd ak moom la mu njëkk a def moom mooy lépp loo xamante ni ay activité la woon yoo xamante ni ay màggal la ak ay taxawaay yoo xamante ni day dajale mbooloo te loolu tawat ji doon ko bañ loolo daf ko daal di dakkal ci mbooleem gox yëpp ak mboolem ñi nga xam ne mooy seen kilifa xam ngeen ne fomm nan fi yu bare bari màggal yu bare bari amut woon diggante deux mille vingt ba deux mille dix ba deux mille vingt et waaye moom bi mu tàmbalee li mu njëkk a def mooy dafa dindi ñaar fukki wala deux cent millions yoo xam ne daf koo dindi jox ko waa senegal jox ko gouvernement bi ne ko nan ko dimbali ko ndax réew mi sunum réew la te lu fi xew wala lu fi am ñun ñëpp dañ ca war a àndandoo dadi di mom moom lépp loo xamante ni borom xam-xam yi docteur yi wax nañ ne loola dañ ko war a def daf koo tàmbali daa di tàmbali dakkal siyaar yi nga xam ne doon am ak dajaloo yi nga xam da doon am yooyu yëpp mu tàmbali ko dakkal ko ndax wane ne ab sénégalais la wane tamit ne sénégalais bi mu doon lépp luñ fi santaane moom moo ci war a jiitu daa di tàmbali di raxasoo li nga xam ne moo di sel ak distance yi nga xam ne dañ koo wax loolee tamit sëriñ bi kenn jiituwu ko ci loolu lépp muy wane am jàngale ak wane aw yoon masque yi nga xam ne dañ na woon na ko ñëpp di ko takk ngir tawat ji xañ na foofu lay gën di kiyee daf koo def ni ko sénégalais yëpp di ko defee te jàpp naa ne lu bari mënoon na ko cee bañ a fekk waaye nag loola lépp di jàngale diine ak di jàngale Sénégal am réew bu nu taxawalee ay droit yu fa war a am ñëpp dañ ko war a respecté ca tàmbali dindi deux cent millions joxe ko ne joxe na ko ngir ci turu Sénégal joxeel ko sëriñ bi ñu demaat tuuti bi nga xamee ne tawat ji ñëw na ba sonal nit ñi ba tëju gi bari lool daara alxuraan yi nga xam ne moo nekk fii ci Touba daara yi dafa daal di tàmbali diggante daaw ak ren ñeenti yoon wala juróomi yoon wax nañ ne joxe na waxtu wu nekk saa buy joxe dina joxe trent tonnes dugub ak trente tonnes ceeb jox ko daara ñiy jàngale alxuraan ba noppi soññu leen ci ngir ñuy jàngale alxuraan. loola jàpp naa ne ba mu ko dalee def ñeenti yoon ci diggante daaw ak ren jox na ko suñ daara yi ngir ñu def ko beneen ba ca toppaat gis nan moom nga xam ne moo di sëriñ Muntaxa daara bu Tarqiyyah fii daf leen a jox dugub ak ceeb ne leen nan ko séddale waa dëkk bi ñëpp ñi ci mën a am ñëpp nan am ñoomit ñu tàmbalee fa dëkk ba tàmbalee yam wut si ci biir dëkk bi tambalé ci peggu dëkk ba wut si ci biir dëkk nga xamné ne sancaan yi ñoom ñëpp ku ci nekk am nga ci lo xamanteni xagna bu la doyut sëkk tamit xam nga ne am lu mu la fatal ci sëkk njaboot té it xam nga ne soxla won nga ko jox ko is bu tarxa yi Touba ci kanam képp ko xamanteni fièvre bi dalon na la ta nga waroon no nekk 40 ñu war la tek ci benn bërepp di la fa faj mu né nan yobbu lepp lo xamanteni lu fa wara dem la nan ko fa yobbu ànd kook ñoomit dindi ci xaalis la mu yor jox leen ko sëñ daara yi sax am na ko ma ciy nett li ne ma du caageenu dugub jéeg ceeb bi mu doon jox dox koo fekk lu ko doon jox la rek muy joxewaat waaye lu mu doon jënd ci xaalisam la din jox facture sax tege na ci suñ loxo xam ngeen ne réew mi ren jànkoon na la coono yu méttee métte xam ngeen ni li nga xam ne moo di géej gi dafa meloon ni xale yi dañoo xaptalu woon li fa dee ci ay junni junni nit kenn xamul nu mu toll am na ci dëkk boo xamante ni daanaka dañuy wax ne dëkk bépp daf koo xaw a màbbu ñu baree bari ci ndaw dee fa lu toll ci fukk ak nangam dee fa ci ndaw loole tamit dindi na lu toll woon ci ñaar fukki million ak ñett yóbbu leen jox leen ko ngir ñu dimbali koo ko fii nga xam ne tamit xam ngeen ne ren at la moo xamante ni at mu kiimaane la marché Ocass gi bi mu lakkee lakk goo xamante ni lakk gu metti la bi mu ñëwee marché Ocass dindi na la nga xam ne mooy million dindi ko jox leen ko te lépp loo xamante ni day xew rek daanu ci kaw taalibe yi wala jullit yi moom day yëg ne ci boppam la daanu moo tax xaalisam alalam du ko fekkee ak ñaanam du ko fekkee coonaam du ko fekkee moo tax noona la jëflanteeg yi bi nga xamee ne fan yii tamit dëkk bi yëngu na yëngu koo xamante ni ku jégg dayolo ba ay bakkan yu bari faatu ci deux cent cinquante millions daf ko génne ngir jox ko ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo ñàkkale ay doom seeni doom ñàkk ca loole lam ca taxawee gis ngeen ko ku ci nekk xam na ne dëkk bi mënoon naa gën a na ëpp loole ci coow wala ci ay waaye ay woowa dafa jóg fay ko ndax xam na ne lépp ci kawam la dal wala lépp ak njabootam la moo tax mu doxale ca nam ca doxale loole lépp boole koo li nga xam ne tamit yàqalu ko li nga xam ne moo di université bi nga xam ne moom la naal te université bi 37 million la loo xam ne 37 milliards yoo xamante ni daf ko war a liggéey université te la yàqalu ko ci dara li nga xam ne tamit moo nekk ci wàllu réew mi nga xam ne dafa nekkoon ci lëj-lëj yoo xamante ni at yeenu passé ku nekk xamoon na ne gestu woon na bu baax a baax ne président bii fi nekk ak président Ablaye Wade mi fi nekkoon amoon na ñuy diggante waaye ba mu liggéeyee Masalik ba mu àgg ca leen jubale ñu doon benn loole lépp day dellu ci réew mi ak Sénégal ñor gi mu ko ñor ak taxawaay bi nga xam ne am na ko ci Euh, loolu nag moo tax tey ñu ne woon dañuy taxaw seetlu ndax sëriñ bi taxawaayam bi dafa doon taxawaay bu rafet boo xamante ni képp koo xamante jiite nga ay nit wan ne yaay seen kilifa di nga wan lan nga leen ilife ak lan nga leen jiitee danga ko wane ci sag mat ci dox ngir jàmm am ci réew mi waaye bu laajee génne alal yi tamit kenn du la njëkk génne sa alal loola nag tax na yi tamit lim koy def lépp ñu àndoon ak nit ñëpp nekk ci kii bi waaye teewul feebar bi tëjloo na ay jàkka ak daaray alquran ak juma ak yooyu waaye yooyu yëpp yàlla defal na ko ci tawféex ba li jàkk yi doon tëj lépp jumaay Tuubaa ji mës sa tëj waxtu koor ci lañ ko doon jullee ci lañ doon jullee julli juróomi ci lañ doon loole lépp fexe na ba méthode bi nga xam ne lislaam santaane na ko teewul daanan fi julli am ajjuma bu mbooloo mépp ñëwul tamit dina am mbooloo mu yem mu ñëw moo xamante ni te loola système la woon boo xamante ni système bu nu waroon a roy ci moom la kër gi li nga xam ne moo di jumaay Touba euh, euh, teewul daan nañ julli waxtu juróomi daan fa julli ajjuma feebar bi tamit xam ngeen ne màggal yu bari waaye yàlla defal na ko sutura ba màggal ak Touba gi woote nañ ko ci jàmm loola it gën a doon kiimaan mu woote ko ba màggal gi jeex ba màggal gi jeex ba topp ay fan benn kaa amul ci réew mi sax waxuma laa di am ci Touba amul benn kaa boo xam ne am na ci biir Touba kon loola day wane rek ak matam ak li koy xolom ni mu xoolee ni mu yéene woon nit ñi la ko yàlla fay li mu yéene sëñ tubaa tamit dal na sëñ tubaa waaye dal na ko ndax moom bëgg ak sëñ tubaa doy na sëkk ci ne euh, sëriñ tubaa àgg naa ci foo xamante ni fa mag ñi àggoon àgg naa ko fa loola mooy dem na ba sës ci sëñ tubaa xam ne moom ngërëmal sëñ tubaa rek la nuwut benn bi ci toppaat mooy lépp loo xamante ni lu réew mi laaj la ci waggar ak ci masla ak ci nekk benn ak ci jàmmoo ku ci nekk xam na ne tamit bi nu sumbee li nga xam ne moo di lislaam muy sunu mbokk yële nekk tiwaawoon di sëñ Bay Mansoor ba mu wootee la nga xam ne moo di tiwaawan di wootee ca jumaa jan fay taxawal da caa jëndi aw ñaxam dugal ca loo xamante ni jarut sax loolu ñu koy tudd ndax yàlla rek a taxoon mu koy def ak lii lépp yàllaa taxoon waaye dañuy wane rek kilifa gu met kilifa ak go xamanteni taxaway bi nga xamne taxaw nako ci dalay woor ne bu fekkone ne ren ji tasewun won ak kilifa gu melni mom dana metti ci nit ñi lool ndax reug reug ji xel yi jaxaso waye loolu lépp ànd koog dalam ànd koog sagom gis ngeen barke dembu bi nga xam ne amna Dekem ci dëkkam bi di Touba gis ngeen nim ko aré fexena ba Touba ben ciow wala ben kaddu sax wu fi waxantuma lak aw yoo sax wu fi sax waxantuma lak dara di fi yëngu te loolu lépp ci kàddoom ak fu mu tegoon sëñ Tuubaa nit ñi teg ko fi bokk na ci li fi xawoon a am tuuti nga xam ne coow la loo xamante ni xale yu ndaw yu ñoom màbboon ngir coono yu metti ak kii ci biir feebar ba ba mu jógee benn minute dong la wax na xale yi dellu leen seen kër toogi ba ma xam ne lan la loolee tamit ñoom ñëpp dañ ko ci àndal déggal kon daal li nu bëgg a wax lépp doon ko tënk mooy gis ngeen sëriñ bi coono bi mu sonn nit ku mel ni na nga am ko muy kilifa goo xamante ni soo nekkee ci problème mu mën la caa génne soo nekkee ci bànneex ngeen ànd ko kon kilifa gu mel ni ku ko am danga ko war a puukarewoo di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi loolu tu wéral ko taxawaayam bii nga xam ne taxawu na ko ren ci taxawaay bi wax naa ko léegi mën naa ciy jaaraat li nga xam ne moo di cent mille deux cent millions la njëkk a génne teg ko ci loxol président nekkoon jox ko Sénégalais yi muy jullit ak kudul jullit bi mu doxaatee tuuti nga xam ne daaray alxuraan yi ñeenti yoon yóbbul na leen saa bu nekk trente tonnes dugub ak trente tonnes ceeb sancaan yi tamit mu jox is bu tarxee na nan ko séddoo bii nga xamee ne tamit géej gi yóbbu na fi lu bari faagaagal fi ay ndaw yu bari ba yóbbu ci lu toll ci benn dëkk dafa wax ne dëkk booba nan dem jaale ji leen yóbbu fa vingt trois millions jaale leen ko bërki démb tamit bi nga xamee ne coow li am na fi ñu bari faatu fi mu dindiwaat juróom fukki junni juróom fukki millions joxe ko loole lépp bi nga xamee ne marché Ocass gi lakk na tamit mu dindi cent millions jox leen ko loolu lépp boole kooku wane nag ne Euh, lii muy def nag sëñ Tuubaa rek a tax mu koy def lii muy doxi tamit ngir jàmm am bëgg réew mi rek a tax moo tax nag tey ñu dikkoon ngir delloosiwaat xamal ne sëriñ bi murit yëpp ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la fan wu gudd kilifa gu am ni mel nii nag ku ko am wax dëgg si yàlla war nga di nettali ay jaloolam ak di ko wax ndax li tax ñu koy wax mooy ñun ñëpp ñu roy ci xam ne yàlla kat sédd nañu kilifa goo xamante gu mat kilifa la waaye yàlla wërsëgal nañu kilifa goo xam gu mat kilifa la ci laabir ci baax ku mel nii na ku ko am sa xel day dal lool saa boo tëddee saa boo nekkee ci njàqari nit ñëpp di tiit yow sa xel day dal lu ko waral mooy dangaa am kilifa gu mat kilifa lu ko waral mooy da ngaa am njiit loo xamante ni njiit la loo xamante ni yàlla ci kawam sa boppam ci ci moom lay xool ci yéen ñi nga xam ne moo leen ilif dëkk bi tamit war na noo santaat yàlla bu baax sant sëñ Tuubaa ndax ay yëpp dañ koy dégg mu nuy tiim waaye fii dégg fi aw ay li nu ko may nag war nañ koo xam mooy kilifa gu mat kilifa muy sëriñ Muntaxa waaye sëriñ Tuubaa mu mat sëriñ aaral nu dëkk bi aar nu ñun ñi fi nekk ba lépp loo xamante ni jafe-jafe yi nit ñi dund ren dégg nañ ko yëg nañ ko ni ko nit ñi yëgee waaye yàlla defal nañu ci jàmm la ca gën a doon ndam ndang mooy jumaa yépp ci Sénégal ñu uboon leen ba mu des jumaay ji nga xam ne ubbu nu ko woon loola day wanal sëñ Tuubaa moom ngum moom lislaam ak jëwriñ jum doon jëwriñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu ngi dellu di ñaanal sëñ Muntaxa suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko ñu topp ci ginnaawam ba ànd ak moom ci kanamu sëñ Tuubaa di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko di sant mbokk yëpp di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu